asalaamaaleykum ah, ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar bu baax a baax. di nuyu tamit mbokki allié gi yëpp si penku bi. lépp lu jëm tamit si ñàkk ndox mi nga xam si moo nekk fii si allié si biir penku bi te tam yàgg lool euh, ñu yàgg see dox it yàgg see wax it yàgg see feeñal tamit suñuy jafe-jafe feeñal si tamit suñuy métti métti yoo xam si mboyam ñu dëkk fii si allié si biir penku bi ñoo ngi jàkkantoon moom tam yàgg lool. bu ne depuis 2018 bi ba léegi fii ñàkk ndox. kon loolu yàgg na metti na. suñuy jooy ak suñu métit ay at nag ay at du dund ñiy waa Touba di wax ñoom ay weer mbaa ay fan nun ay at lañ ko dund nun waa Touba alee ci penk bi ay at lañ ko dund lu ne nag jànkonte nañ ko fi lu ne métit wu ne jànkonte nañ ko ci ndox. lé te nun suñuy droit nag ñu ngi koy ndax bi wote bi ñëwee nun ñëpp danoo jaayante ma ñuy feebar sax danoo jël taxi dem wote ji kon kan lan woteel ñi ngi woteel eh, eh, Bassirou Diomaye ndax nag bëgg suñu réew mi changé ndax danoo yàgg dund ci metit nun waa Touba allié ci penk bi sonn nan lool ku nu dimbali te yàlla tax moo taxoon suñu suñu suñu yëngatu bépp ñu di koy yëngatu muy góor di jigéen di mag di ndaw allié ñëpp Bassirou Diomaye Faye la ñu woteel fii ci Touba allée penku bi ndax lan bëgg suñ réew mi nag changé suñ dëkk bii nag changé ndax dañoo sonn de dañoo sonn sonn nañ te lan la ñu am ndox borom kër gu ne bu xëyee ma ngay daw dépasse dund bi seer na métti na ñu ngi daw dépasse bëgg a daw ndox li ngay joxee dépasse ci bu ñu lekk ngay joxe dépasse ndox te heureusement sax nag doo ko am. da ngay dem pass ba ñew do gis mel fu sa soxna du am ben ndox bu mu talé day dem di wuri ndox mu neex ñukoy jaay bi lu ndox 200 francs nga ñëw bëgg ci togg añ bëgg ci togg reer dana metti lool. wali dal wax deug yalla son nañ torop ci ndox juroom ñaaret ngay rot guddi ak beccëk yeen say jigeen ñi sax dañu dem di jënd ci ndox mu neex mi diko toggé té ñun liñu jaaxal moy Touba nenañ nañ forage ak juroom ñaar mi ngi fi fanweeri forage ak juróom-ñaar ñu ne benn forage bu ndox mu neex moo fi nekk ndox mu neex moom du manqué mukk tout moment boo ko soxla am ko boo bëggee ndox mu naqari mi doo ko mën a am ñuy ñaan nag di sàkku ndimbal ci sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa général ak sëñ Bas ak état bi nga xam ne ñoom ñoo toog bees ñu dimbali ñu ndax lu ne mënees na ko manqué ba mu des ndox ndox bala ngaa jaamu yàlla da nga am ndox bala ngaa togg da nga am ndox bala ngaa fóot da nga am ndox suñu xale yi genn wàll gi damm nañ ci root mi jigéen ñi ku ci dem tooy nañ seen jigéen ñi seen borom kër yi jënd nañu ordonnance ba amatuñu lu ñu jëndee ordonnance jënd nañ ndox ba amatuñ lu ñu ndox nañ ñu dimbali te yàlla rek tax bu fekkee ci askan wi lañ bokk bu du daraat képp koo xam ne nii boo walante nga te man ñëw dimbali ci suñ forage bi nga xam ne ca màggal ga lañ ne woon balaa màggal danañ ko def ci réseau bi màggal ba léegi forage bi mun a xelli ñu ñu ñu bosone ko fii rek comme li sa waay wax bàyyi ko fi dem seen yoon. ndax forage boo xam ne nee nañ côté bu ne mën naa jox dix kilomètres ndox vraiment ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk fii Touba Alieu loolu waroon na ko mën a saafara mais ñu liggéey ko ba mu des pompe ak poste de courant ñu ne ko fi kupp dem seen yoon keroog bi ñu déggee ne ministre bi dana fi ñëw sax gis nañ ñu taal oto ñëw fii di def nii te yooyu yëpp amu fi yoon mais nañ ñu dimbali ngir yàlla lii ñuy def nii nag li fekkee ne nii ay loxo téye ndox mi nii ci Touba xam ne Serigne Touba li mu wax ci dëkkam bi dina am. ndax wax na ci Matlabul Fawzayni dana am dëkk bi dana am ndox mu bari képp koo xam ne nag yaa ngi gàllankoor ndox mi na nga xam ne lu na la cee fekk ndax nit nañ jullit yi yàlla bàyyi seen dëkki maam yi ñëw dëkk seeg Serigne Touba fii ngeen leen di sonal ci ndox moo xam ne nii boo bëggee naan doo naan boo bëggee togg doo togg nit ñi kenn xamatu sax lu nit ñi di nuru dëkk bii koo ne aal yi mu ne gis nañ fii terrain nit da koy bëgg sax ba a ñu ne amul loolu nañ ñu ci dimbali bu fekkee ci état ci dëkk bi lañ dëkk ñu dimbali ci ngir yàlla ñu ngi interpellé aussi sëriñ bii nga xam ne moo fi nekk muy sëñ Moustapha Alaaji Baara wax dëgg yàlla ñun sëñ bu fekkee dëgg la yàlla bëgg jàpp ba fi sëñ Baara jógee ba léegi ñu Aliya gis gisuñ bopp ci dëkk bi ñun waa Aliya ba sëñ Baara ko ba léegi gisatuñ suñ bopp ci dëkk bi kenn walatuñu du du du dispensaire Aliya amul dispensaire Aliya amul ndox Aliya amul ay oto. ñoo ngi ñaan daal ci jëmmi yàlla ak ci yàlla may ku nu wallu wallu gi nag ñu ngi ci gërëm reeteet sëñ Moustapha Douré Mbacké ñewuna fi ay yooni yooni yooni yoon ginnaw yalla li ñu ñu defal ñu ñu forax la nun ko jàppuñ ko forax ndax li tax jàppuñ ko forax defo nañ ci suñu yaakar ndax liñ ci defé suñu yaakar dañ ni won bala magal dana xelli ñu am yaakar tok di diwul waxuma la magal ba magal ga jalle leen buub seeni bagage lu mel fourné rek fay tege nun gisunum ndox nun hmm. tay wun nak, duñ tay duñ bayyi nak dañ si wax di dox di jëm ba keroog suñu borom di indi si saafara si mboolem loxo yi nga xam si ñoom ñoo yor ndox moomu. jigéen ñi ñii feebar na kom ni ko euh, sëñ Fallou kan mi waxee rek suñuy xale damm nañ mag ñi damm nañ te lépp ci rootaan mi rek ah nun nag danoo bàyyi suñu xandeeri maam. kenn ku ne am nga foo jóge waaye nag suñ Touba lañ yaakaar te moom lañ gëm moom lañ wóoloot ñëw ci dëkkam bi ngir yërmandeem ju tedd ji kon nag ñu fi bàyyi nañ ñu yërëm ngir jëmi yàlla. nan nu yërëm ngir jëm yàlla ndax sonn nan lool wallahi ku nu yërëm yàlla naanu ku nu dimbali yàlla naa la fay am ñu seen fay yàlla leen di boole ndax nag dañoo sonn nag. ñoo jaamu yàlla wóor na sëriñ to man mii di wax ak yéen man la fi sama sët tëddoon ba guddi mu ne ma maam damaa bëgg a naan yaayam dafa demoon Porokhane wàcc ma ak moom. ma mu leer na ni bu may tëdd genn surtout ndox ni ko ci kër gi may nax tàpp tàppal tàpp ba mu nelaw ma ne mu tëdd mu jógaani ma maam damaa bëgg a naan ma jóg dugg ci lal bi sama rangoñ gi dal sama dënn bi ma ñaan lii de yàlla na ko sëñ tubaa gaaw saafara bërki démb tegale naa eh, tisbaar saan timis ba gee laa koy doog a julli ndax aw ma ndox mu ma jàppe waaye waaye nañ ñu dimbali ngir jëm sëñ Tuubaa nun ay jullit lañ. weer balaay sax bëgg nañ fee ñëw ñu ne ñu ñu arrêté leen ne duñ fi ñëw. ndax ndax tata yi dégg naa ñoo leen wax ne bu leen fi ñëw te ñun bu tata yi bokkatuñ ci tata yi ñu ngi dem léegi ba daaru xadim fa la ñuy feese boo taxawee ci tali bi am dara lu la yóbbu kon nañ ñu dimbali ñun ci dëkk bi lañ bokk bu dul dara ñu xool ci ñun Serigne Touba xam na ñun ay taalibe Serigne Touba lañ dañoo ñëw fii pour yar suñ njaboot nekk fii ci ci ta ak ndigal kon dañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba Serigne Moustapha mbaa taalibe yi fi nekk si fi nekk sëñ Bass Abdou Khadir ñoom nañ ñu dimbali lillaahi wa rasuuli yi ndax dëkk boo xam ne nee nañ ndox dafa manqué léegi fukki fi oto ak juróom oofu ñu ngi fi oto bu dem ci forage yi duy ñëw boo soxlaa ndox ñu ñëw jaay la 15000 kon ndox mi manqué wul dañ ko téye ndox mi dañ ko téye ndax bu njëkk dañ naan ndox mi am na wan yu benn benn wan yu xel sax waaye léegi benn wan xeletu benn tiwa amatu ndox ci àll gi mais lan lañ bëgg wala dañoo bëgg ñun ñu ñu génn dëkk bi ndax nak bu dëkk mënoo su faa dëkk te do am ndox do nan do sangu do foot kon nañu dimbali lillahi wa rasuli yi. asalaamaaleykum jërëjëf waay sang bi ñoo leen siara baax baax ñu ne ku dimb nga leen bëgg wax deug yalla mbolam moom gis nga len ni mom ni nak da ëpp até até ate at at sabara bi sax fi dafa dam sax mo xamatu sax fi won nga ne ñoo len sat di len gërem ah lu ngeen ci ma dimbal ngeen dimbal ñu ko to yalla tax ci barkat Alxuraan Karim jërë ngeen jëf